mu ni le débat est tranché le débat est tranché depuis longtemps parce que moom jàpp na ne constitution loi wu Sénégal may na ko mu nekk candidat loolu la wax da koy déglu ba pare nga yëngal sa bopp parce que da nga naan comme li benn journal wax tey ban ci Macky Sall yi lañ war a déglu parce que en réalité le président Macky Sall tey jii rek am na benn activiste bu nekk euh, Côte d'Ivoire je pense Nathalie Yam boo xam ne teg na benn audio wu Macky Sall bu mu doon waxee ci troisième mandat tey ci suba rek laa ko gis xaw ma kañ la ko def mais tey ci suba gis naa ko boo xam ne le président de la République xam nga dafa wax ne constitution bii mënul laal mandat bi mu njëkk a def le premier mandat est hors de portée de l'actuelle constitution loolu la wax mais président de la République Diène moom moo wax ne ñépp di ko dégg te tey ci suba rek maa ngi seetaanaat mu ne bi mu defee réforme constitutionnelle bu 2016 c'était plus pour la durée du mandat que pour le nombre de mandats maanaam ñaata at la mandat bi war a durer loolu la bëggoon régler mais li nga xam ne mooy ñaata mandat nga war a def loolu moom régler woon nañ ko te loolu mooy li am loolu président Macky Sall waxoon mooy li am parce que Abdou Diouf bi muy jugee ci Sénégal en mille en deux 2000 jànkat droit dañuy wax ne. li nga xam ne moom lañ tuddee woon le verrou sur la limitation des mandats Abdou Diouf ko dindi woon maanaam ku nekk mën nga def nombre mandat bu la neex Abdou Diouf dindi na ko indiwaat ko dindiwaat ko indiwaat ko mais liñ jàpp mooy bi mu fi jógee da ko dindi woon bi Ablaye Wade nekkee président en 2000 en 2000 la def réforme constitutionnelle ñu wootewaat constitution bees en 2001 constitution boobu dafa fixé ne président wu Sénégal ñaari mandat nga war a def pas plus jéen ci constitution boobu ci lañ fal Macky Sall constitution wu 2001 boobu ci lañ fal Macky Sall mu nekk président def benn réforme constitutionnelle wax ne constitutionnelle wax ne comme euh, constitution wu Ablaye Wade ba fixé woon na nombre mandat yi ne deux rek la war a doon mais teewul ñu ngi doon werante parce que noonu la ko waxee ñu ngi doon werante ba ay bakkan rot ci ndax Ablaye Wade nee na euh, concerné wu ko il faut euh, mandat bu njëkk concerné wu ko il faut mu def un troisième mandat en 2012. xeex ba ba ay nit faatu ci président Macky Sall ne léegi dama koy verrouiller maanaam dama koy bind ci bind boo xam ne dafay leer ba dootu am benn werante te bind boobu jéen président Macky Sall wax na dëgg dafa leer ba amul benn werante mooy nul ne peut plus de deux mandats consécutifs loolu la président Macky Sall bind. keroog bi mu koy wax président Roch Marc Kaboré bu Burkina Faso woon moo taxaw ci wetam mu wax ne moom mënul comprendre débat bi ñuy teg nii ci réew mi. parce que débat bi moom ci boppam moo ko régleel boppam wax ne kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat ne sama màndaa bii may wuti 2019 su ma ko Sénégalais yi wóoloo accordé ma ko man jeexal naa ci pare naa ci jullit tubaab ba pare dem ci livre mu bind ci ne Sénégalais yi maa ngi di ñëw jàkkaarloog yéen di wut un deux un second et dernier tey président Macky Sall wax ne mandat bu njëkk ba. est hors de portée de la constitution bi mu bi ñu am nii parce que <laughs> non mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est man je crois que li gënoon a yomb mooy def li Ablaye Wade waxoon maa waxoon waxet ku nekk xam noo ko attee mais tel qu'on veut nous expliquer les te loolu waa APR yi moom la ñuy wax depuis des de des mois maintenant mooy yéen ñëpp dangeen doon nelaw ñun rek ñoo yeew woon léegi ñëw leen yeewu ñu wax leen li xew li xew mooy li ñu doon wax yépp bi ngeen di nelaw ay gént la woon pour yéen mais c'est extraordinaire te loolu amul benn sénégalais boo xam ne xamoo ko amul benn kilifa diine bu ne ci réew mi xamoo ko amul benn journaliste bu ko xamul amul benn activiste bu ko xamul amul benn homme politique bu ko xamul que ne président Macky Sall moo waxoon sénégalais yi ne leen maa ngi nii taxaw jàkkaarloog yéen di wut un second et dernier mandat d'ailleurs kuy bind tubaab xam tubaab sax xam ne boo nee second jënatul nga ci teg dernier parce que deuxième mooy am troisième mais second mooy dernier tey nee nañu mandat boobu c'est hors de portée de l'actuelle constitution c'est extraordinaire waaye nag soo xoolee ñoom ni ñu ko bëgg a layale seen premier argument mooy bi ñuy tuddee argument juridique mooy constitution bii ñu yor mënul concerner mandat bi président Macky Sall njëkk a def te loolu président Macky Sall waxoon ñu moom ne constitution bii concerné na ko parce que constitution wu 2001 réglé woon na nombre mandat yi ba pare muy benn ñaareel ba tey beneen argument bu ñu bëgg a jaay mooy argument wu waaw au nom de la stabilité du pays président Macky am na droit changer position parce que loolu la ñu wax démb rek seetaan naa benn waaye ci seen TV mu wax ne waaw man nga am position bii mais bu contexte bi ak circonstances yi changé nga am beneen position. de la même manière Ismaïla Madior Fall le ministre de la justice bi mu demee keroog ci Baye Omar Gueye émission bi doon def ci Sud FM loolu la wax mooy les circonstances mën na la amener nga changer position loolu nag man xaw ma nuñ ko bëgg a layale mais loolu mënul bokk ci benn valeur u Sénégal parce que Sénégal gii ci suñu réew mii ci lañ waxee ne gor gor kàddoom a koy yeew gor kàddoom rek moo koy yeew à partir de de l'instant où gor kàddoom yeew na ko lépp lu ñu bëgg a man mënuma ko d'accord mënuma ko comprendre te l'argument selon lequel au parce que dégg naa sànq sax je crois maître Djibril War moo ko wax bi mu ñëwee Walf que ni au nom de la stabilité du pays au nom de xaw ma lan lan lan le président de la République dafa war a présenter en 2024 mais dafa mel ne euh, ñi yore pouvoir bi soit ñoom dañu yaakaar ne sénégalais dañuy nelaw wala ñoom seen bopp ñoom ñooy nelaw. ku fàttaliku bi Abdou juuf ne bëggut a présenté wu élection présidentielle 2000 socialiste yu bari li ñu doon wax naan mooy Abdou Diouf su fi jógee kan moo ko fi mën a wuutee Abdou Diouf mooy kan moo ko mën a wuutu Abdou Diouf mooy nitu jàmm ki Abdou Diouf mooy lii Abdou Diouf mooy laa il faut que mu présenté wu waat parce que Ablaye Wade mii su fi ñëwee ay guerre la fii nii nangam ak nangam parce que Ablaye Wade moo ne woon su euh, Sénégal Mauritanie mu ne bu fi nekkoon président mu demee neneen Abdou Diouf présenté wu ba mu présenté woo Ablaye Wade dóor ko dóor yi métti nekk président de la république pourtant day Ablaye Wade géré na Sénégal ba dem yoonam sénégalais yi ne ci jàmm ñu ëpp ci ñoom bokk ne ci jàmm Ablaye Wade mi ñu doon wax Ablaye Wade en 2012 ñu bari pour convaincre ko mu nekk candidat dañ doon wax ne Ablaye Wade bu fi jógee ñi fi nekk nii kenn mënu ko fee remplacer ay Moustapha Niasse ay Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ay Amath Dansokho yàlla na ko yàlla yërëm ñii mënuñoo jiite Sénégal il faut que Ablaye Wade nekkaat candidat Ablaye Wade nekk candidat Macky Sall muy dóor ko dóor yu métti Macky Sall yor na Sénégal Sénégal a nii dem de la même manière noonu laa gëme man sénégalais bi ma doon que ne y a au moins dans ce pays des centaines de sénégalais yoo xam ne su fi président Macky Sall jugee mën ngaa tànn kenn ci ñoom mu wuutu ko réew mi kóon na di dox ay ay paawam di dem mu yéex ak wala mu gaaw nag ñu ne ci jàmm. loolu mooy Sénégal parce que rien que le fait de dire que président Macky Sall mënta bañ a présenté wu parce que réew mi fi mu toll tax mooy manqué respect sénégalais yi mooy leur diir que yéen ñëpp 17 set que vous êtes y a que président Macky Sall qui peut être président ci année yi ñu nekk il faut qu'on arrête ce genre de discours parce que discours boobu du fi nga xam ne moo ñuy moo ñuy jëmale moo ñuy jëmale kanam te tey j'ai bien aimé d'ailleurs Euh, titre bu ma liir ci Walf Quotidien ñuy wax ne y a un un un parfum de de rupture entre le président Macky Sall Emmanuel Macron président wu France man xaw ma xaw ma parfum de rupture xaw ma mais en tout cas li ma xam moo di ne France googu nga xam ne bokk bokk na ci les partenaires privilégiés pour ne pas dire le partenaire privilégié du Sénégal man yaakaar naa ne li xew Guinée Conakry xew Mali xew Burkina Faso ba France ñàkk euh, jamono ji ces position de privilégiés dans ces pays là yaakaaruma ne France dina jël risque les même choses di ko dal au Sénégal l'instabilité au Sénégal ça ne profite à personne d'abord ñun Sénégalais on n'a pas besoin de ça mais ñi nga xam ne ñooy suñ ay partenaires il n'ont pas besoin d'une instabilité au Sénégal ak li nga xam ne moom moo xew actuellement dans la sous-région ñuy li suñu njariñ mooy dem élection présidentielle ki koy gañe gañe ko ci jàmm ak salaam ñu fal beneen président jàll ci leen te loolu euh, jërul sax di di di xool euh, midi ba 14 heures Sénégal yépp xam nañ ne loolu mooy njëriñu Sénégal parce que loolu moo ñu jig en tant que démocratie mais soo xoolee démocratie authentique boobu le président Macky Sall wax wax na ba ci ne opposant boo xam ne da ngay mobiliser la rue pour se soustraire à la justice c'est parce que le Sénégal c'est une démocratie authentique mais kon lijjanti woon nañ say mbir bu yàgg jaaxle am na de ci réew mi réeroo am na ci réew mi comme on dit démocratie authentique defe naa ne lii di xew ci réew mii du xew dans une démocratie authentique le Sénégal gëm naa ne c'était une démocratie authentique xëy na pour ñeen ñi c'est toujours une démocratie authentique mais li nga xam ne mooy xew ci suñu Sénégal gii te ma wax ko sànq mënul nekk une démocratie authentique une démocratie authentique dafa war a am ay ressort ay institutions yoo xam ne dañuy marcher de telle sort que képp koo xam ne yoon war naa dal sa kaw dina dal sa kaw te doo ci am dara xaar ma yàlla parce que da nga am confiance ci yoon mais tey yaa a une rupture de confiance entre sénégalais yi ak yi ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite. entre sénégalais ak ñi nga xam ne bu seen rangoon tuuroo fa lañ war a dem ñu fompal leen ko y a une rupture de confiance te loolu il faut ñu am audace xool ko. comprendre ko jéem ci trouver ay solution mais tant qu'on se voilera la face naan nous sommes une démocratie authentique nous avons des institutions solides un pays qui marche normalement nous avons les ressorts qu'il faut euh, Sénégal dara du fi xew man je pense on se trompe lourdement on se trompe lourdement il faut il faut qu'on ouvre les yeux moo tax ci loolu la ñuy jeexale sax soo déggee les opposants sénégalais maintenant en tout cas ñenn ci ñoom principalement ki ñuy tuddee Ousmane Sonko tey mënuñu am mënuñu xaar ci ñoom le discours d'un opposant boo xam ne dafa jàkkaarloog un pouvoir bu kii fonctionne de manière démocratique tey amoon na ay temps ñëpp xamoon nañ ne le discours bi Ablaye Wade doon tenir face au pouvoir de Diouf ñëpp dañ doon wax ne Wade c'est pas un démocrate Wade c'est un homme violent pour quoi parce que Wade dafa tolloon foo xam ne daanañ ko teg di ko teg di ko teg di ko teg ba mu yàgg mu ne mais attends ñii il faut faire face Ablaye Wade dem na fi élection élection am ay député je crois euh, bëgg mu wax chiffre parce que je veux pas me tromper sur ça mais Ablaye Wade dem élection xam nga élection mooy li normal ci démocratie mu dem dans une élection législative am ay député moom Ablaye Wade député yooyu war a dem siège assemblée waa waa PS récupérer yëpp ñu bokk seen camp Abdoulaye Wade daan dem élection ñëpp gëm ne moo gagné ñu ne joxe na résultat yi Abdou Diouf gagné na Abdoulaye Wade ki ay partisans mu nekk ci mbedd muy jooy mais il est arrivé un moment où Abdoulaye Wade bu bëggee marche ñu ne du marche su bëggee meeting ñu ne du meeting su dee campagne ñu koy menacer di ko sànni di ko di ko di ko accueillir ci yenn dëkk ak violence di tere ay dëkk naan Abdoulaye Wade du fa dugg. mais loolu moo yóbbu woon la PDS ñu dem ba ne ñu ne attends est-ce que ñun on va continuer bu ñu mbéjee fii ñu joxe beneen lex. beneen lex plus xalifa Khalifa Ababacar Sall mii Karim Wade avant Karim Wade Europe la nekk France defe naa ñu ko war ko poursuivre mu jël avion ñibbi Sénégal ñibbi Sénégal ne confiance en la justice de mon pays ñaata atu la ko coûté ba léegi ji mënul dugg mënul ñibbisi ci réew mi xalifa Khalifa Ababacar Sall fii lañ ko convoqué mu war a wuy ji yoon dimanche mu def conférence de presse fii ci mairie Dakar Serigne Moustapha si euh, toog ci wetam muy wax confiance bu mu am ñaata atu kaso la ko la ko coûté pendant ce temps ngay gis ñoo xam ne dañoo trafiqué ay faux billets def leneen ak leneen ak leneen ak leneen ci réew mi waxuma sax kaso mais commissariat sax jaaruñu fa mais loolu soo nekkee opposant ci réew mu mel noonu ñu woola la yóbbu la ci yoon teg la ay tuuma yu garaaw a garaaw a garaaw mais da ngay dem ba mu jàgg da nga naan man su ma defee comme Khalifa Sall wala ma def comme Karim Wade ça va me coûter très cher très cher Sénégal foofu lañu toll moo tax man ma gëm ne bu fekkoon dañoo am des institutions normales avec une justice boo xam ne duñ wax duñu tànn naan euh, ñaar ñett ñeenti magistrats yii de mën nañu am ci ñoom confiance mais am confiance parce que problème bi encore une fois c'est pas des magistrats pris individuellement pour man c'est pas des policiers pris individuellement c'est pas des des gendarmes pris individuellement pour man c'est une institution qu'on doit respecter dans sa globalité cette institution là li ñu koy respecter nekkul di ñu napp nekkul di ñu fekk ci mbedd mi di ñu dóor nekkul di ñu sànni ay lacrymogène mais simplement taxaw taxawaay boo xam ne même buñ jëlee lu métti teg ma ko damay leen damay am confiance ñoom parce que dama naan ci yoon rek lañ nekk di ko doxal mais tey ah du ma ne Sénégalais yëpp mais Sénégalais yu baree baree bari tey amuñu confiance ci réew mi ak ni ay institution bi di doxe léegi dérèglement yooyu su amee faut pas s'attendre des opposants ñuy teg un discours républicain faut pas attendre ça c'est rêver que d'attendre ça Ousmane Tanor Dieng parti socialiste dem na opposition Ousmane Tanor Dieng ne ñun li ñuy def mooy une opposition républicaine opposition boo xam ne dañuy respecter institution yi opposition boo xam ne bu ñu bëggee marche ñu ne ñu du ngeen marche te teguñu ko fenn aussi dañuy bàyyi suñ bëggee sitting ñu ne ñu du ngeen sitting te teguñu ko fenn dañuy bàyyi <laughs> mais xoolal PS tey fu mujj jën PS tey fan la mujj hmm? tey bu ñuy lim parti politique du Sénégal da nga naan APR ne PASTEF bu la neex sax nga teg ci PDS <laughs> mais doone PS mi nga xam ne moo Sénégal ñoo ko tabax. PDS gi euh, na ma yàlla baal ci yoon woowu lañ jëm suñu defaruwaatul suñu defaruwaatul tey jii on demande aux jeunes sénégalais de respecte les institutions on demande aux jeunes sénégalais naan leen bu leen saaga suñu institutions yi bu leen wax suñu institutions yi lii suñu leen woowee ci yoon da ngeen war a wuy ji mais ces jeunes sénégalais là buñ toogee gis na ñoom quartier bii ñu dëkk te loolu il faut que njiit yi bàyyi ci attention dangay gis benn quartier kër bàyyi diw kër sama tante diw kër sama bàjjen diw kër sama nijaay diw lim ay kër yu bari kër gu ci nekk jàpp nañ fa ay gone yoo xam ne lenn dong moo leen dal mooy fekke fu ñuy manifester wala manifestation ñu génn doxi seen soxla gone yooyu ñu naan ñu ngi kaso nga dem ci école fekk ay xale yuy jàng ñu ne leen seen seen maître wala seen professeur bi leen waroon yor anglais tey wala mat ñëwul xale yi laajte fu ñëw ñu ne ñu ngi ci kaso bi pour lan parce que dañoo fekke ji woon benn manifestation boo xam ne sax parfois c'est autorisé xale yi di ko dégg nga dem ci école xale yi ñu ne xale yi xëy suba di jàng si ne eh, ana suñ camarade jéen ñu ne leen ma nga tribunal dañ koo jàpp xale yooyu loo ñoom ñépp def mbooloo dem taxaw ci tribunal ba ay centaine d'enfants taxaw ci tribunal ne il faut ñu libérer seen camarade yi jàpp mais loolu image yooyu ku koy xool ci réew te nga am fa responsabilité mais bu la alerté wul yow doot dara dootu la alerté dara dootu la alerté je regrette mais je pense que même les institutions ñu ko incarné war nañoo xool ne mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays le président de la république le président Macky Sall ma je pense il doit être le premier à se dire que ni je n'écoute personne je regarde mon peuple qu'est-ce qui se passe dans ce pays ba sa peuple là nga xam ne en 2012 ñoo ma acclamé ma ànd ak ñoom dem pouvoir tey jii fu ma waxee ñu teg ci lu bon. ce peuple laa tey mën naa am tous les moyens man yor gendarmerie police yor tous les moyens pour se défendre yor alal joo xam ne mën naa leen ko jox ba pare koo xam ne yorul dara su leen woowee ñoom ñëpp ñu génn c'est des questions à se poser des questions à se poser tey lan moo war a tax bu ñu woowee nit ne ko demal wuy ji ci yoon kenn kenn du lijjanti ndax ma ngay wuy ji ci yoon ba pare am koo xam ne moom ci réew bu ñu ko woowee ne ko demal wuy ci yoon même bu waxul kenn bu ne bu ne bu kenn ñëwit nit ñu ñëw il faut se poser des questions sinon dañuy def ay analyses yu biaisées dañuy def ay diagnostic yu biaisé fii lañ eh, ñëw ñu jeexal ci loolu jën parce que ñu ngi wax ne waxtu jeex na ah, en mars 2021 bi ñu génnee xale yu génn di manifester ci mbedd mi xeex bu metti am fi ay nit dee fi dañ ne wéy parce que dañ leen a tëjoon tëj bu metti ndax Covid bi moo tax ñu génn amatuñ xëy liggéeyatuñu Covid bi dafa metti dañ leen a tëj vingt heures ñëpp tëddi par force mënuñoo liggéey nangam ak nangam moo tax euh, biñ ne génn leer ñëpp profité ci génn mars ñi ngi ci mars lan 2023 kenn ñu di Covid jeex na ñii ñaa ngi dox seen soxla et pourtant semaine dernière génn nañ manifester ci mbedd mi ba mu métti mais loolu jar na taxaw seet. Hmm? et le seul qui doit aujourd'hui nous sauver de tout ça parce que moom rek la dépendre mooy le président de la république Macky Sall moom rek la yàlla may tey daraja bu toll ne su ko neexee réew mi dal su ko neexee réew mi dal nit ñi liggéey normal moom moom moo yor pouvoir boobu may malheureusement on a l'impression que ni ñu ko wër dimbaliwuñ ko ci loolu ñi ngi gërëm ñëpp.